déglu leen jàmmalay FM. ci juróom ñeent fukk ak ñaar yu tomb ñett. yéen a ngi déglu jàmmalay FM ci 92 leen imaamuna te wóolu sayyidu ruuxuna ibnul imaam il asana ndax yàlla fay nu aljana.

اللهم صلاة ربنا على النبي شفيهنا خيرو لولين مديتي وي امام لاي نجر وي مرسي سيدي روح لاي جنتم غنيل بسوخنا غمو لولين امامنا تول سيد روحنا ابن الامام الحسن نخيال فين والجنا ننغم تخمني سيدنا limaamu may ga naa lu jiitu feeñ nga nekkoon naa ca ngor di jaamu rabbana limaamu nee na jullikaay boobe ñuy wax ca ngor ne mooy bu seydina xaliilu laay am na fayaat yu yàgg ne mooy bu Seydina Xaliilulaahi am na fay at yu yàgg naa lu paase junni yu wóor guddi gu nekk mu ngay wër addina bi ci bépp boor lépp di seetlu addina limaamu ne ba mu naree feeñ seen xeet wa lu bare gisul ap suturaale bu ci xeeti àddina lu bare gisul lu ëpp suturaale bu ci xéti adina motax mu fën ci ñom di wo àdduna penku ak sawo ni te gine la boole woo naan jaamu leen xaale xunaa bésab dimanche lam mbir ma ñëw ci mom mu yëkkati ca kaw bismillahi rahmaani rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المستمعون الكرام نحييكم بأزكى تحية الإسلام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبارك الله ين بوك جلتي gannaaw ba nu ubbi ko ci bismillahi rahmaani rahim ci turu sunu borom subhanahu wa taala di ñaan moom yàlla yàlla na nu aar sàmm ñu li ñoo musal ci yàqkat bu mag bi ak i gaayam ak i ànd ndoom yàlla na nu yàlla làq fu yàq yeggul yàlla na nu yàlla defal ak jàppandal defal ñu ak taysiir ñu ngi ñaan yal na yàlla dotti ay leeram dotti ay xéewalam ci sunu sang sunu soppe seyduna muhammad yal na ko yàlla dotti ci njabootam gu tedd ga yal na ko yàlla dotti ci saabaam yu tedd ya yal na ko yàlla def ci bépp jullit fa tabaarakallaahu ñu ngi yëkki nuyoo yu tedd ziyaar yu tedd di ko jëmale ci mbooleem auditeur Jàmmalaay FM 92.3 seen mbokk seen xarit Ababacar lay Bass am mbégte dellu siwaat ak yéen ci seen émission ci waxtaane téere diine ji te ñu koy amal altine bu jot ci waxtu wi fa waaye duñu dugg ci liggéey bi te ziyaaru nu nan ko daan defee ci émission bu nekk ki nga xam ne mooy sunu xalifa seydina abdullahi ibnu seydina isa ruullah di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko wér dolli ko nooteel dolli koy xéewal tabaarakallaahu yal na nu yàlla nangul sunu ñaan ci moom moom Seydi Abdullahi waaye it yal na nu yàlla nangul ay ñaanam ci nun fa tabaarakallaahu ñun njaboot gi noonu it la ñuy ñaanale mbooleem kuy kilifa diine nekk ci réew mi ak ci bitim réew yàlla defal ak jàppandal yàlla defal la ndam fa tabaarakallaahu ci njabootu yàlla googu nga jiite ba li ci soob sunu borom na mu bëggee nga jiite njaboot googu yàlla defal la ci ak jàppandal ba ëllëg ci kanam sunu boroom yàlla defal la ci ndam wa ma zalika alallahi bi aziz ay rakkam di ziyaar képp ku mu njaboote ci góor ci jigéen ci mag ci ndaw waaye it ñuy yëkkati njaal di ko jaale moom Seydi Abdoulaye sunu xalifa bu tedd bi ci tiis gi dal ci njaboot gi muy doomam ju tedd ju fi bawoo fa tabarakallahu di soxna Xadijatu Laay doonoon doomu xalifa bi yàlla dogal mu jiitu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko maamam yu tedd ya teeru teral ko te it njaboot gi yàlla na leen yàlla may xolub muñ تبارك الله نيجي عندك ينبتي تي بشر المحبين وتيحز الجاهلين موي تيربو تفسير مختار لو تاليف بشر المحبين بجل واي صبي وتيحز الجاهلين واي يي واي رير te ñu xamaloon leen kan mooy tafsir maxtaar doonoon ku bari may yàlla dogaloon mu doon tafsiir ci alxuraan doonoon muxaddam ci tarixatu tijaan waaye it xam-xamam ràññeeku woon fële ci njàmbur ci wàllu fànn gune ne nit daan ñëw di sàkku ci moom xam-xam eh, ba yàlla dogalee nag woote ba jip di woote bu Seydina Limaamu mu ànd ki mbokkam ñu tëdd ñu ràññee leen ci xam-xam muy ku mel ni ki tafsir Abdou Gaye ak Cheikh Jibril gay ñu ñëw ngir wuy si woote bu tedd boobu di woote bu Seydina Limaamu Laay il Mahdi salaatu wassalaam bi mu ñëwee wuy si nag yàlla dogal ba sang ba génne àdduna moom seydina al mahdi alayhi salaatu wasalaam doomam ju tedd ja doonoon xalifaam di seydina isa ruullah woo ko moom tafsir maxtaar ne ko jot naa kat ci ne war nga bind téere ci samay jaar jaaru baay seydina imaamilaa il mahdi alayhi salaatu wasalaam muy ku mandu looloo waraloon seydina isa dénk ko liggéey boobu di ku mandu waaye di ko am xam-xam tabaarakallaahu mu def liggéey bu mucc ayib bu am solo ci wax li mu fekkee Seydina mu jëf ko waaye it wax li mu dégg Seydina mu wax ko waaye it bindit la nga xam ni ñoom la ñenn ci ay saaba yi fekke woon wala ñu déggoon ko walla ñu gisoon ko tabaarakallaahu loolu la tënk ci téere bi di Bushril Muhibbin di bégal way soppe yi wa tayxizul jaahiliin waaye it di yee way réer yi e, buntu bale weesu ñi ngi woon ci ajaib yi nga xam ni moom la yàlla doolele woon Seydina Limaamul Mahdi ci woteem bi maanaam mooy kéemaan yi nga xam ni sunu boroom fesaloon ko sunu boroom wane na ko ci Seydina Limaamul Mahdi yu mu jëf ko ay saabu am gis ko jax ren mu wax moom tafsir maxtaar ne لما فشت دعوته وعجابه كثير من أهل البلد حسده قومه مما أعطاه الله من بوك نتي أي كيمانا ممسينا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ay kéemaanam nag yi nga xam ne def na ko ci kàttanu yàlla mu ne ba wooteem siiwee lu bari wuy si ko ci ñooñu réew mi yàlla dafa dogaloo nit ay nitam bi maanaa ay mbokkam ñu bari ci ñoom e, dañu ko iññaane woon ci lii nga xamante ni moom la ko yàlla defal wa washu baynahu wa bayna nasara ñu dal di ko rambaaje nag jaxase ko moom limaamul mahdi yu digganteem ak diggante nasaraan bi ñi fi nekkoon ci jamono muy colonisateur yi wa qaalu li nasara inna al imam illahi kasura atbaa'uhu wa qaal innahu huwa al almacdiyu allazi yuzilu mulkukum wa lahu suyufun wa madafi' wa rimah yadaqiruha fi daarihi وقال أصحابه كذا وكذا فيما يحزن الملك حتى فزع النصارى منه mu ne ñu wax tubaab bi ne ko limaamu dey bari na ay taalibe bari nañu ko topp te moom day nee na mooy max du yu ma nga xam ni mooy jeexal seen nguur yéen tubaab bi mu ne nag limaamu moom am na ay gànnaay yu bari li ko demee ni ay jaasi ak i fital ak i xeej yoo xam ni denc na ko ci biir këram ñuy wax ci ay saabaam mbaa ay àndandoom di wax nangam ak nangam ak nangam ci yi nga xam ni indi woon na njàqare ci nguurug tubaab gi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ba ñu tiit ci Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam eh, daan nañ dégg ci Baay Abdullahi mu wax ne am na kenn ci mbokku Seydina Limaamu ñi ko doon rambaajeeg tubaab bi te jamono jooju tubaab bi dañ daan yebal ay agent secret dinañ ko gis ci kanam dinañ ko gis ci kanam ci téere bi ne koo xam ni ngir tubaab bi bu ñëwee yónnee agent secret am gëm loolu ñu ko wax ci limaamu ne dafa ami gànnaay ngir waajal xare bu muy xare ci seen kaw ngir jeexal seenuk nguur nee na kenn ci mbokkam yi ndeysaan dafa jël kees goo xam ni fetal moo ca ne bon kees gu defoon fetal jamono jooju kees gi dañ ciy dessiné fetal ci kees ga nee na mu ñëw ndox ko seen aliment mu ne ko ah, kees gi de dama la ko may ngir nga koy denc nga ciy denc warga ndax kees gi war naa mën a denc warga seen aliment mu xam pexeem ne kees gi bu leen ko dugal ci néeg waaye daaj leen ko bangu diggu kër ngir ku ñëw gis ko mu ne fànn ak photo fetal bi nga xamante ne nii moo ci ne kon nga xam ne kooku wóolu na boroomam xam na li ko yàlla yónni te xam na fa mu jëm mu ne waxtaalu fi izalati daawatihi wa ifsaadi amrihi wa tafriixi ahli diinihi noonu nag ci la nasaraan bi taxaw ci ngir jeexal wootem ba ngir yàq mbiram ba noppi tàqale ay ñoñam ñooñu diineem ya nga xam ni ñoo ko woon wa fi amrihi bayna axzihi wa xatlihi wa itlaafihi kama faalu bi baxdi ahlillah mu ne nag ñu diisoo ci mbiri seen Limaamu ñoom colonisateur yi muy tubaab bi fi nekkoon ci ne ndax dañu koy jàpp wala dañu koy rey wala dañu koy jël sànki ko bi maanaam dañu koy exiler ni nga xam ne noonu lañ ko defee woon lenn ci ñoñ yàlla yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di wooteel yàlla mu ne wala ma ishtahara amruhu inda baadi nasara تحدث فيه النصرانيان مع أحد التجار من إخوانه واسمه ديجيجان وبعد ذلك لقي التاجر تلميذين من أخيار أصحابه وهما سك وممرجان أمينة رضي الله عنهما من بمبرم سيوي mbiram سيدنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ci lenn ci nasaraan yi muy tubaab yi fi nekkoon doonoon colonisateur yi ñaari nasaraan dañu waxtaan ak benn commerçant ci ay mbokkam moom Seydina Limaamu turam nekkoon déggee jaañ ginnaaw loolu moom déggee jaañ boobu mu dajeek ñaari taalibey Seydina Limaamul Mahdi aleyhi salaatu wassalaam yi ay tànnee saabaam ya ñu leen di wax Njaga Sekk ak Momar Diagne Aminata yal na yàlla dolli leen gërëm commerçant boobu wax leen ne leen mankat toog naag ñaari nasaraan ñaari tubaab maa leen ñetteeloon إني جلست مع نصرانيين وأنا ثالثهما وقال لي إن نصر سيذهب إلى شيخ الإمام سريعا ليأخذوه فلتذهب إليه لتخبراه بذلك من من دي day toog كوميرسان بوبو commerçant boobu wax ñaari taalibe limaamu toog naag ñaari nasaraan ñu wax ne day ñoom dañuy dem ngir jàppi limaamu cheikh limaamu sëriñ limaamu mu ne dañuy dem ngir jàppi ko ci lu gaaw mu ne kon na ngeen dem xibaar ko loolu kon na ngeen dem daal day informer limaamu ci ne kat nasaraan yi ñu ngi def pexe ngir jàpp ko noonu nag ci lañu laxase ñaari saaba Seydina Limaamu yooyu wartaxalaa inda Tëngéej fi waxtil asri wa jaa fi muntasifi leyli ñi ngi jóge Tëngéej ci waxtu tàkkusaan daanaka ci diggu guddi gi lañu yegg yoof wa wajada naasa niyaaman wa jaa ila albaabi allazi kaana waraahu kaana waraa daarihi fa wajadaahu ay imaamillah ñu ba ñuy ñëw yoof ci diggu guddi ga fekk nañu nit ña nelaw waaye ñu ñëw ba ci buntu kër ga nga xam ni fa la Seydina Limaamu nekkoon ci buntu kër Seydina Limaamu ñu fekk ko fa mu taxaw moom Seydina Limaamu di leen xaar di xaar ñaari saabaam yooyu fa wajadahu waaqifan yantadiruhuma wa qaala lahuma ba ñu ñëwee rek Seydina Limaamu daal di leen wax لعلكما جئتما لأجل السر الأربعة قال له هم ثلاثة سينا الإمام أمانة للين في إندي دي موي سكرب نينتنا نينتنا دون سكرب نيدون توك دي وقتان مولين في إندي تا واخو نو سخ سينا الإمام خبار بي ñu ne Seydina Limaamu moom Njaga Sekk boobu ak Momar Diagne Aminata ñu ne ko déedéet ñett la woon fa qaala lahuma Seydina Limaamu wax leen hum arbaatun li anna allaha raabiuhum ñoom day ñeent lanu nu woon ndax yàlla moo leen ñeenteel ba ñu toogee di sekkerewu ñaari nasaraan yooyu ak commerçant boobu di wax nee na yàlla moo nga leen ñeenteel yàlla yëg na te yàlla dégg na la ñu doon wax خالله نكو صدقت دغ واخغا دغ دي وذلك قوله تعالى لولو دي دغل واخو يالا جا ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابئهم ولا خمسه الا هو صادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم wax ji dëggal waxu subhaanahu wa taala boroom bu tedd boobu buur bu màgg boobu mu ne ñett duñu diisoo lu dul ne yàlla moom moo leen ñeenteel juróomit duñu diisoo lu dul ne moom yàlla moo leen juróom walla lim bu néew loolu walla lu ko ëpp lu dul ne yàlla mi ngi nekk ak ñoom fépp fu nu mënti nekk te it moom yàlla dina leen xibaar ci la nga xam ni nekkoon nañ di ko jëf yowmal xiyaam bisub taxawaay ba mu ne xanaa xamoon ne day inna allaha bi kulli cheyin alim yàlla moom aji xam la bépp mbir kon gis nga ba ñu nekkee ci ñoom nasaraan yooyu di wax ci mbiru Seydina Limaamul Mahdi yu ndax dégg nañu la ay mbokkam waxoon rambaaji Seydina Limaamu ak tubaab bi ba nasaraan yi di def plan di préparer ngir ñëw di jàpp si Seydina Limaamul di ba wax ceeg commerçant booba ba commerçant bi dajeeg ñaari saabay Seydina Limaamu ñu xibaar ko mbir mi ne leen gaaw leen gaaw dem ci Seydina Limaamu xibaar ko fekk booba ñoom am na ku leen gën a gaaw am na ku leen gën a xam te booba kooka leen gën a gaaw gën leen a xam xibaar na ko Seydina Limaamu kooku di kan di borom bi subxanahu wa taala ma nga xam ni ba ñu dee ñett moo leen ñeenteel moo tax ba ñëwee. fekk Seydina Limaamu ci buntu kër ga taxaw Seydina Limaamu ne waaw ndax diisoob ñeent ña moo leen fi indi ñu ne ko déet ñett la de Seydina Limaamu ne ñeent la ndax ñett ñooñu yàllaa ngi leen ñeenteel te gisuñu ko ñu ne ko ax akay fa tabarakallahu mu ne wa xarubat ayaamu ityaanihi ilayhi arsalu ilayhi jasusayni wa ataya ilayhi wa qaala mu ne ba seen dikk jegeñee nag ñoom nasaraan yi ngir ñëw ci Seydina Limaamu dañu ko yónnee ñaari agent secret ñaari agent secret yi ñëw lan lañ wax Seydina Limaamu ñu ne ko naxnu kunna fi xidmati nasara muddatan tawilatan wa naxnu aratna an natuba ila allahi wa nastaxfiru rabbana ma dumna fi lxayaa fa qaala lahuma ما قلتما حسن وأمرهما بالإغسال وخلق الرأس ثم تركهما يدوران في الدار وهو أعلم بما جاء من أجله ñaari agent secret yooyu ñëw ne Seydina Limaamu ñun de dañoo nekkoon ci service tubaab bi di fa liggéey waaye nag bàyyi nañu leen léegi dañoo bëgg a ñëw tuub jëm ci yàlla jéggalu ko moom sunu boroom fekk ñi ngi nekk ci dund ma dum naa fil xayaa si naa limaamu ne leen ah loolu ngeen wax day rafet na mu digal leen ñu sang leen sangu janaaba ñu mel ni ki ñu tuub waxal xiraas mu digal leen ñu watu suma tarakahuma yadurraani fi daari wa huwa aalamu bi ma jaa min ajlihi fii nag njàngale mu fi ndax boo xoolee mag ñi ñu ci bari ñu jëloon werd ci Seydina wala ñu jëloon werd ci Seydina Isaa dañu daan wax ni bu ñu ñëwee di jël si werd dañu leen di digal ñu sangu janaa ba watu bu ko defee ñu jox leen werd foog naa ni ba tey am na ñu fi des ci mag ñi nga xam ni jëloon nañu werd ci Seydina Isaa eh, ñoom dañu wax ne noonu lañ ko daan doxale bu ñuy jël wérd fa tabaarakallaahu dañuy sangu janaa ba ba noppi ñu digal leen ñu watu loolu daal bari na ci mag ñi nga xam ni eh, baaxe nañu ko kon fii nga gis ne foog naa bu ñu demee ba ci kanam wala amaana professeur Assane la sax moom moo indi ci livre la max di tuuru ñaari agent secret yi nga xam ni ñoo ñëwoon ci Seydina Limaamu boo gisee ñaari agent secret yi tuuru jullit la ñu yoroon kon ci diir diine islaam lañu nekkoon waaye ba ñu ñëwee fa tabarakallahu sidna limaamu def leen digal ñu sangu janaaba wat leen kon ngir seen tuub dugg ci islaam boobu gën a mën a wér donte seydina limaamu xam na la leen tax a jóg waaye ginnaaw noonu moo doonoon ak doxalinam doxalinam boobu daf ko wéyale rek ci ñoom suma tarakahuma yadurraani fi daari wa huwa aalamu bi ma jaa min ajlihi mu bàyyi leen ne fépp fu mu leen neex ñoom ñi nañ ko dugg ci kër gi xool ba fu mu daan amaana tere ñenn ñi sax ñoom da leen autorisé woon ngir ñu dugg fa ndax xam na moom ñoom la leen taxoon a ñëw wala walama jaa al yowm allazi alima anna qaidan min quwaadi nasaara yaati fiihi qaama waxta subxi wa qaala li sayd al azam aradna an narja al yowm ila dakar li naquza mataana wa narjia ilayka ba nga xamante ne ni bés ba nasaraan yi waree ñëw yegsi na ba nu xëyee ñu wax Seydina Limaamul Mahdi ñoom ñaari agent secret yooyu nekk ah ñun dey danoo fas yéene dellu dakaaru ngir jëli sunuy bagaas ba noppi dellu si waat ci yow xaalalahuma na limamu ne leen ala tantaziraani lazina kuntuma tantaziraanihim waaw ndax du ngeen xaar rekk ñi nga xam ni nekkoon ngeen fi di leen fi xaar fa sakata suma zahaba ñu noppi daldi dem kon Seydina Limaamu yàlla xamaloon na ko nit ñi fa tabaarakallaahu tuub taxu leen woon a ñëw dugg ci diine taxu leen woon a ñëw waaye dañu fi ñëwoon ngir agent secret wu dañ fi ñëwoon ngir coytu ni ñu koy waxee وفي ذلك اليوم جاء قائد من قواد النصارى مع أصحابه الكفار بوبا نك تلا سن نجيت لدال دي نيو عندك لن تي نجيت النصراني تس موي سن أوفيسيي منوهم أربعون راكبا نيدون ننفك غوار وخادهم أحد الفجار من فساخ قومه waxuwa ma sàmba kokki eh, ka nga xam ne nag moo leen jiite woon ci ña nekkoon di yàq moo nekkoon ma sàmba kokki wa tawajjahu nahwa jàmmalaahi ba ñu ñëwee ànd ak ñoom moom ma sàmba kokki jiite leen moom nasaraan yooyu ba ñu ñëwee dañoo jublu jàmmalaay muy bërëb bi nga xam ni mooy bërëbu jullikaay ba doon bërëb bi nga xam ni naa li Seydina mu daan wéetale boroomam ci lu bari mu ne wa yarjuuna an yajiduuhu fi dalika al mawdi xaaliyan min annaasi wala ma lam yajiduuhu fi dalika al mawdi tawajjahu naxwa daarihi ñu dem jàmmalaay fekk ñu fa Seydina Limaamu fekk bërëb ba daal di vide gisuñu fa kenn noonu nag ci la ñu jubloo jëm ca këram gu tedd ga moom Seydina Limaamu wa wajadu asxaabahu yazkuruna allaha zikran kasiran waxta zuxri fi baabil masjid ba mu ñëwee ñu fekk taalibe ya muy saaba yu tedd ya ñu ngay tudd yàlla ca buntu jàkka ja ngir waajal waxtuk tisbaar jamono jooja e, zikkaru néew bi lañ daan sikkare bu ñuy julli wax laa ilaa لا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله boobu noonu lañ daan sikkare fa tabarakallahu balaa ñoo dugg ci julli kon saaba yaa ngi ci buntu jàkka ji di tudd yàlla seydina limaamul mahdi ma nga ci kër ga wa huwa fi daari yamuru man baqiya fi daari li yazhabu ila aljamaa maa ilmihi bi ityaani al aada mi ngi farlu nag di wax mbooleem ku nekkoon ci kër ga na dem ca mbooloom jàkka ja ndax xam ni noon yi fa tabarakallahu ñu ngi ñëw wa lamma jaau qaalu ayna al imaam qaalu lahum huwa fi daari ba ñu ñëwee ñoom nasaraan yeeg gawar ya mu àndal ak ma sàmba ki ma leen jiite ñu ñëw ne mbooloo ma ane limaamu ñu ne ko limaamoo nga ci kër gi wa kaane imaamillaahi xabla zalika yaqulu lahum fekk lu jiitu loolu seydinaa limaamu waxoon na leen moom taalibe yi leen man jaa ani wa araada an yaquzani aw araada an yaqtuluuni baynakum fala taqumu lahu watrakuuni maa rabbi boobu fekk Seydina Limaamu ne leen képp ku ñëw ngir jàpp ma walla mu bëgg maa rey nee na bu leen jóg bàyyi leen maag sama boroom fa ana iktafaytu bi rabbi wa astainu bi xayrihi wala astainu bi xayrihi mu ne maa ngi doyloo sama boroom moom yàlla te sàkkuwuma ndimbal ci kenn ku dul yàlla suma xaal topp mu wax tawakkaltu alallahi wa kafa billahi wakila man de wéeru naa ci sama borom wakkirlu naa ci yàlla te yàlla doy na ma wéeruwaay doy na ma wakkirluwaay wala ma jaahu qaidu nasara wa man maahu min alkuffaari fi daarihi ahlu yoof kulluhum xaraju yanzuruuna kayfa xaaluhu wa xaalu alkuffaar mu ne ba nasaraan ci kër seydinaa Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam mu ne foofa mbooleem waa dañoo génn di seetaan Seydina Limaamu moom naka lay mujjeek tubaab yi nga xam ne ñoo ñëw ngir jàpp si ko wa hum maa suyuufihim wa silaaxihim wa huwa laysa maahu shay'un fekk ñoom ñi ngi yore seen jaas ya ak seeni xeec ya bi maanaa seen arme ya te fekk Seydina Limaamu moom yorul dara lu dul rek illa atawakkul bi rabbihi waktafa bihi lu di wàkkirlu ak di doyloo boroomam wa qaala li asxaabihi mu wax ay saaba moom seena limaamu laa yarfau ahadun minkum yaddan wala udan bu kenn ci yéen yëkki loxo wala muy yëkki bant faskurullaha faxat la gayra zalik mu ne yëkkati leen turu yàlla wi rek bu leneen lu dul kalimatu laa ilaha illallah gën a jib rek fa rafaw aswaatakum bi zikrillah noonu nag saaba yi daal di yëkki seen baat ya ci turu yàlla wa qataa qaidul kuffaari sitra daarihi officier ba jiite woon yéeféer yooyu le daal dee dog sàkket wa ak jaaseem wa daxala maa sayfihi wa midfaihi wa jaala annaara fi beyti min buyutihi mu daldee dugg ak ngànnaayam ya ak fetal ya mu yoroon daldee taal benn ci néeg yi nga xam ni moo nekkoon ci kër Seydina Limaamu li yaqriqahu ngir ngir taal ko fa wadaa saydu yaddahu alayhi fantafaa lu mu taal Seydina Limaamu teg loxoom du takk wa qaala laa taltahib wa qaala taltahib وقال السيد لا تتوقدوا فاوقدوه ثانيا بنيو تالي سينا لما من لندو تاك بو تغي لخم رك مفاي بو تغي لخم بو تد با مفاي مو نيوا تالات لن موم اوفيشيب سينا لما من بنيو تالاتي سينا لما تك لخم فتبارك الله مفاي وجعل فيه يده فانتفع وأخرج القائد مسدسه الذي لا ينبع mu daal dee génne nag fa tabarakallahu ngànnaayam ba nga xam ni fusil ba nga xam ni moom moom fa tabarak du rate mukk wa kashafa sayyidu ba tuqba uznay uznihi wa qaala lil kaafir Seydina Limaamu daal di ko jox nopp ba ba mu génnee fetalam booba fusil ba Seydina Limaamu daf ko jox nopp ba ne ko téqal fii ولما دفع في صخب أذنه ودفع مرة أو مرتان لم ينخز متق بمعنى مجيم تيري تاكل متيري وات نياري ليون بتاكل فكشف خاسرته وقال سينا الإمام ني آه، كون دي فوفا خنا دا فا دغر نوب بي موتاخ تاكل سينا الإمام دال دي يكتي وان كو جومبخ با في ندخ تاك mu tegati ci jumbaxu Seydina Limaamu ba tiire tàkkul wa jaala fi dalika al mawdi wa dafaa falam falam yanfuz musaddasuhu wa xaaru wa axaza silsilatuhu lati kaanu yajcaluunahu fi yaddi kulli man asaruuhu wa yuriduuna bihi alqatla noonu ci la jël ceenam ga nag daal day ceene Seydina Limaamu ceen googu lañ daan ceene képp ki nga xam ne mon nañ rey ci moom wa madda asseydu yaddahu ilayhi wa jaala fiha silsila Seydina Limaamu tàllal loxoom yu tedd ya nga xam ni ca la ñu defoon ceen ya wala ma tàmm filuhu saqata Seydina Limaamu tàllal ko loxoom ya mu takk ceenam ya ba mu noppee takk ba ceene ba pare ceen ga daal di rot fa saxatat ala turaab wa jaalaha fi yaddihi maratan saaniyan wa saxatat foofu foog naa bàyyi Ablaay yàgg na nu ko nettali mu ne bu Seydina Limaamu tàllalee loxoom yu tedd ya bu ñu ceenee bu tuddee turu boromam bu ne laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ceen nga daal di rot ñu takkati Seydina Limaamu tuddaat turu boromam ceen nga daal di rot ثم ساله قائد الكفار بقوة فرفعه سيد نحو السماء فوفا نك ba ay pexeem jeexee nag mu daal dee song Seydina Limaamu moom officier ba ba mu ko songee nag Seydina Limaamu ne ko cees daal di ko yëkkati ba biir ba weex niñ koy waxee fa tabaarakallaahu daal di ko dóor ci suuf fa rafaahu seydi naxwa samaa'i wa darabahu fi l ard fa bakkal kaafir mu daldi di yéeféer ba nag daldi jooy yuuxu wa xaama wa haraba jóg daal daw nax wa farasihi daal di dem ci fasam fa rakki ba mu war mu war jawaaduhu gawaram ga raja di dellu nag nax wa ndakaaru jëm ndakaaru wa tabi'ahu asxaabuhu maxzuniina azalla àndandoom ya daal di ko topp ñuy way torox di am gàcce tabarakallahu foofa am na lu ñu ci sunu bàyyi libaas daan faral di nettali nee na booba génnuwaay bi nekkoon boo daan génn yoof di dem ndakaaru yaa ngi koy jaare wakaam ba ñu demee ba foofa am na dex gu fa nekkoon dex ga danga ko daan xuus ñu koy wax dexuk lëmbënglu nee na bu ñu ñëwee ba ca dex ga dañu fa ngiroo mënatuñu dem dex ga dafa leen téye waa wakaam ña daw ñëw wax ko Seydina Limaamul Mahdi Seydina Limaamu jël suuf ñaan ca ne bu ngeen demee sànni ka ca dex ga ba ñu demee sànni ka ca dex ga ci la fa tabarakallahu seen fas ya mën a ci la ñu daal dee dem ndakaaru ba ñu demee ndakaaru nag ñu rendre compte ña nga xam ne ñoo leen yónni woon mu ne wa lamma raja alqaidu qaala man arsalahu indil imaamu lazi arsaltumuni ilayhi laysa bi insin mu ne limaamu ma ngeen ma yónni woon day ngir ma jàpp ko indil leen ko limaamu moomu day du nit da xool ñeent fukki gawar ci benn doomu aadama jéem nañu la fetal tàkkul jéem nañu lakk sa kër tàkkul jéem nañu la ceene ceen ya daldi dagg rot jéem nañu la song tatafu la yóbbu la mënuñ ci dara moo tax ñu ne ko limaamu mii nga ñu yónni day ngir ñu jàpp ko limaamu moom du nit wallam ara ahadun misluhu moom tubaab baay wax mu ne gisuma kenn ku mel ni moom wa kullu ma la wa kullu ma xiila fii xaqun lépp lu ñu leen wax ci moom day ci ay kéemaan dëgg la fa xasina jamiu nasaara nasaraan yooyu yëpp nag daal day jàq li ci loolu ci li nga xam ni déggoon nañ ko ci ay mbiram fa xasina jamiu nasara li zalika alyawm lima samiuhu min amrihi wa qala malikuhum seen buur ba nag daal day wax azhabu ilayhi maa jeyshi dinaa fa dem ànd ak sama armée wa daa cheikha ndakaaru lazi kaana waziruhum fil balad noonu nag ci la nuwoo sëriñu ndakaaru ki nga xam ni moo fi nekkoon ci jamono jooju وكان عما له من جعة أم أم أبيه تفك سرني ذكر تجمعنا جوجو نجاي لون تسينا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام تي والو بايم تي والو نديو بايم على سانتشو وقال عمه لمالك النصارى نجايم جوجو نك وخ كنا خمني مونيكون كليفي نصراني ne leen laa tazhab bi bi jayshik li annahu ibni mu ne buleen dem mukk ci limaamu yóbbu fa seen armée ndax limaamu moomu sama doom la azhabu ilayhi ana li yatiya maai ilayka dinaa dem jëli ko indi ko ci yéen fa maa xaalahu naasu laysa bi xaq li nga xam ni moom la nit ñiy wax ci moom day du dëgg wa axaza amuhu yowman li yaatiya ilayhi maa ruasa il balad noona nijaayu Seydina Limaamu boobu di bàyyi taxam daal doonoon grand sëriñ de Dakar dal day ànd ak boroom pénc yi kilifay pénc yi daal day ñëw nag ci Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam wala ma jaau ilayhi waxtalaxu bayna baabi daari wa masjidihi ña nga yendu ci diggante mbaa bokk ña nga dal ci diggante jàkka ja ak kër ga ndax Seydina Limaamu jàkka ji ak kër gi ñoo janoo woon fala leen Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam dalal wa jaahum wa ballaxahum atama salaami wa raxaba bihim wa saafahahum maa tabassumin wa bashaashati wajhin noonu fa tabarakallahu seenaa limaamu saafanteeg ñoom nuyu leen fa tabarakallahu yaatal leen ba noppi nag ubbil leen xar kanamam yamul foofu moom seenaa limaamu wa ataamahum atyaba taami maa al urzi wal xubzi wal laxmi xata shabiu mu daldi leen berndeel ca ñam ya gën a tedd ci ñam yi ci xeeti fa tabaarakallaahu ceeb ak ci xeeti mburoog ci xeeti yàpp ak yu demee noonu ba nu regg walama tammat xaajatuhum fi dalika daahu amuhu bayna ahlil balad wa ixwaanihi wa qaalu la noonu nag ba teraanga ya matee fa tabaarakallaahu e ñu nijaay ja nag daal di ko woo ci kanami borom pénc ya nga xamni fa tabarakallahu ñom la andalon ak mbokk ya ñu ne ko al yawm nuhibbu an ta'mura ashabak an yarji'u ila biladihim wa tazhab ma'ana ila malik مالك النصارى لكي نصلح بينك وبينه لأنك من أبناء البلد ñu ne ko li maamu tey daal nu indi woon danoo bëgg nga digal taalibi yii la wuy si ñu delluwaat fu nu jóge woon te nga ñëw ànd ak ñun ñu dem ci nasaraan bi dem ci tubaab bi ngir jubale la ak moom ndax doomi réew mi nga kenn ëppalewu la fi laa yuslix an tufsida al li anna nasara in jaau ilayka yufsiduuna al waroo yàq dëkk bi du rafet ci nga yàq dëkk bi ndax tubaab yi bu ñu ñëwee fii yoof dëkk bi yëpp dinañ ko yàq wa anta zu ixwatin wa iyaalin te yow boroomi mbokk nga fa tabarakallahu boroomi njaboot nga it noonu Seydina Limaamu daldi leen tontu suma xaala saydu lahum yaa am ammi yow sama baay tëx إني قلت لك منذ ثلاثة سنين إن مالك النصارى يفعل لك لواء كبيرا سأخيل فيه معك هذا هو اليوم الذي عنيته منك يو سما بايتخ وحنا على نت أتجناو نغوروك نصران جدي دينا نولا بارسول بمك te man ak yow xel sët nanoo yendu bés ci suufu parasol booba bàyyi tax ba ne ko dëgg la de seen alimaamu ne ko bis bii laa la doon wax muy bisub tey bi wa haza huwa alyawmu allazi anaytuhu waxat wajada annahu jaa bi liwaa in mislil bayt booba bu ñu la takkale ndomba tànk ngay grand sëriñ dañuy defal dañ lay defal parasol boo xam ne daanaka dina toll ni ki néeg moom lañuy yor ngir yéeral ak jant bi bés booba nag parasol boobu la ñëwee parasol bi tubaab bee ka daan def di leen ko jox ngir di leen ko neexale ci suufu parasol booba nag la limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam yendu woon ak grand sëriñ bés booba fekk lu jiitu ñetti at boobu falaguñ ko grand sëriñ Seydina Limaamu ne woon na ko tubaab yi dinañu la jox parasol boo xamante ne nii bés xël set naa yendoog yow ci suufu parasol booba Seydina Limaamu ne ko nag sama bàyyi teex loolu ma la waxoon bés bii la doon wund nag bés bii moo waraloon loolu mu ne kon waxat wajada annahu jaa bi liwaa'i mislil bayt wa nasabahu li ammihi fi dalika al suma qaala lahum noonu nag seydnaa limaamu wax leen antum tuhibbuuna an amura nusuura allahi allazina yafuuna nicmata allahi wa yuhibbuuna daawatahu mu ne ndax dangeen bëgg tani yàlla yi nga xam ni dañoo ñëw ngir xéewlu si ci xéewalu yàlla gi wuyu wooteb yàlla bi ndax dangeen bëgg ma dàq tan yooyu منعنا بذلك أصحابه الذين آمنوا به وصدقوه فيما أمره الله وطبئوه فيما أمر وما نهى من ميغي جوبل سي تان يويو صابا ييغا خامني ньо ньо ويسي ووتاب يالا بي دغال كو فتبارك الله با نوبي دي توب ليكا يالا اكيد دي باي ليغا خامني موم لا كو يالا تحبون أن أرسل تلاميذي هؤلاء وأبقى وحدي أذهب معكم إلى البحر لنصطاد الحوت كما كنا أولا ذلك لا يكون أبدا سينا لما من ndax da ngeen bëgg ma yebal taalibe yi ñu dellu fa ñu jóge woon ma des ak yéen ànd ak yéen di dem géej di napp ni ma ko daan defee bu njëkk ñu ne ko ah loolu day limaamu la nu bëgg seen alimaamu ne leen zalika laa yekkuun abadan loolu mënatul ne ndax jaalani llahu fawxakum yàlla jël na ma teg ma ci seen kaw wa fawqal xalqi kullihim yàlla jël na ma teg ma ci kaw bépp mi ndeef ana atwalukum xaamatan maa leen kawe ca kaw وأتعلكم باعا والإمام يوف لا يقوم هنا ولا يقدر أحد علي بشيء باي لاي ne maa leen kawe maa leen fawx ci fépp te it maa leen suti mbir limaamu limaamu yoof laa aquumu huna du ma fi jóg te it laa axdiru ahadan alay bi shay amul kenn ku mën ci man lenn ndax booba doole tubaab ba ñu doon tiit limaamu lii la leen tontu ndax doole tubaab ba ñu doon tiit ngir tubaab bi dal ci Seydina Limaamu rey ko mbaa mu sànk ko mbaa mu jàpp ko tëj ko ba noppi yàq dëkk ba Seydina Limaamu ne leen fii duma fi jóg yoof gi duma fi jóg limaamu limaamu yoof te wala yaqdiru ahadun alayya bi shay'in amul kenn ku mën ci man dara inna allaha nasabani huna yàlla moma ma samp fii li adu baynal insi ngir may woo diggante nit wal jinne ak jinne laa yuzilu dhalika ahadun min alxalqi loolu kenn mënu ko dindi kenn ci mbindeefi yàlla yi mënul dindi loolu noonu nag wa axaza bi yaddi ibnihi wa wazirihi wa xalifatihi ruillahi sayidina isa wa ci le téye loxo doomam ja di jëwrinam ba di xalifaam ba di ruuxilaahi isa di seydina isaa ruuxulaahi mu wax moom sayidina limaamu ne ana alimtu anni amutu in jaat at lii xam naa ni man limaamu day xel set naa dee bés bu sama dik jote walakin in mittu walam yatimma ma amara nii bii rabbi sa yuttimuhu haazal ulaam waaye bis bu ma faatoo woon mbaa bu ma faatu woon te man limaamu lii ma yàlla yónni matulit nee na ngune si dina ko mottali wa huwa ibnu samaniyatin aw tisatin te nee na boobu Seydina Isaa mi ngi toll ci juróom-ñetti at wala ci juróom-ñeenti at suma am mi ammihi wa ixwaanihi topp Seydina Limaamu nag wax bàyyi te xam ba waxit mbokkam ya nga xam ne ñoo fi ñëwoon izhabu incha allahu sa afalu maa amuru nii bihi dem leen bu dem sob na yàlla dinaa def la ngeen wax dem sob na yàlla nga gis ne foofa ni ko Baye Abdoulaye daan waxee xale bu juróom-ñetti at nga xam ne lu nekk xañ na fi ki am juróom-ñetti at Seydina Limaamu téye ko te boobu limaa moo ngi tollu daanaka ci ñeent fukki at ak ñett 43 ne day donte dama faatu woon te li may wax matul gune sii dina ko mottali ndax li téere yi wax ne Mahdi yu Isaa koy dëggal gis nga bàyyi laay ko xam fu mu jëm la Seydina Isaa yàlla mënoon na fi jël bakkanam ndax gis nañ ku tay gis nañ ba tàyyi ku jiital sa njaboot jiital sab doom waaye Seydina Limaamu foofa li ab lay wax ni Baye Laay foofu dafa giñ ndax xale juróom-ñetti at juróom-ñeenti at nga ne lii may wax bu matulit kii dina ko mottali booba giñ la waaye yàlla dogal li mu dogal ci moom Seydina Limaamu toogaat fi ñaar fukki at ak ñett ba Isaa moomu am fanweeri at ak ñett Seydina Limaamu doog fee jóge te li ñu ne woon maadi yu Isaa doon jaraafam moo di doon naa ibam moo koy jullee lii am na ñëw leen seet limaam ni ko imaam Saxiir mu tedd ma waxe kayfa antum isa nazala ibnu mariam fiikum wa imaamukum minkum yonent bee ko waxoon waaw yéen jullit ñi naka ngeen di def bés bu Isa wàccee ci yéen te seen imaam seen njiit nekk ci seen biir kan mooy njiitu jullit ñi foofa jullit ñi kuy seen njiit Seydina Muhammad wa imaamukum minkum fekk yéen seen njiit def leen léebu wa imaamukum minkum mufassiru nay ne murad bil imam huna al mahdi waaw kon fu Isa teew mahdu yu ñëw di jiitu Isa kon moom mahdu yu moomu lan mooy statut te Isa nekk min ulil azmi xoolal mbiru sunu borom foofa Seydina Limaamu ne kon ne mbokkam ñi dem leen bu soobee ma borom li ngeen wax dinaa ko def waaye bu soobee ma borom اذهبوا ان شاء الله سافعل ما امرتموني به وصلى الظهر والعصر وحال لاصحابه نون سيدنا الامام المهدي عليه الصلاه والسلام جلي تسبار جلي تاكوسان دال دي وخ اي سابام كل نبي له هجره mu ne leen yonent bu nekk ñeel na ko gàddaay fa azhabu na ngeen dem wa amara baada azwajihi an yazhabna ila baad al mawaadi mu digal lenn ci ay soxnaam ñu dem ci lenn béréb wa lamma salal maarib ba mu jullee timis nag waazahum wa waadahum sawaabal muhaajirin mu daldi leen waar wax leen yool ya nga xam ni moo nekk ci gàddaay waxat kaana yaqulu lahum qabla zalik fekk lu jiitu loolu daan leen wax moom seydina limaamul mahdi salaasatu sanawaat ñetti at salaasatu ashhur ñetti weer wa salaasatu ayaamin ñetti fan waaye nag walam yuxbiruhum bi sababi zalik waaye mosuleen wax saba bukk ñetti at yooyu mooy lan fa tabarakallahu sabab bukk ñetti weer yooyu mooy lan saba bukk ñetti fan yooyu mooy lan fekk ba tubaab yi njëkkee ñëw yàlla may ka ndax ba ñu ñëwee fa tabarakallahu jéem ko jàpp seen pexe antuwul jéem ko rey seen pexe antuwul jéem a taal këram seen pexe antuwul fekk bi lii am yëpp waaye yoofu yëpp génn nañ def seetaan seet di def ndiiraan ba ñu dawee saaba yi dañoo bëgg kontaan bàyyi laay ne gor ba tëdd na gor ba tëdd na waaye gor ba tëdd na waaye ndëg naa mi ne sàññ gëmmaleenoo laay ku gëmmul doo wey gor ba tëdd na gor ba tëdd na laay gor ba tëdd ngi ne sañ gëmmaleenoo laay ku gëmmul doo wey boobu Seydina Limaamu il parlé en parabole alayhi salaatu wassalaam ñëw nañu duma naa leen yàlla may na ma ndam seen kaw góor ba tëdd na l'arbre qui barrait la route a été abattu waaye nag attention y a des <laughs> boo koy jéggi ndëg maa nga ca góor ba tëdd na waaye ndëg mi ndëg mooy épine ndëg maa ngi ne sàññ ndëg moomu nag muñ la koy tax a traversé gëmmalee noo ku gëmmul doo wey booba naa Limaam moo ngi leen di xamal ni yàlla may na ma ndam waaye yeneen nattoo ngi ñëw nattu yoo xam ne nag ku sa ngëm dëgërul rek di nga flancher gëmma leen ku gëmmul doo wéy ndax dañoo dem préparer waat ranfort ngir ñëwaat dal ci kaw Seydina Limaamul Mahdi yu fekk boobu sunu boroom xibaar na ko bés ba nuy ñëw ak waxtu wa ñëw moo tax ba Seydina Limaamu fa tabaarakallaahu jullee timis waar mbooloo ma wax ak ñoom ci yool ga nga xam ni mooy yoolu way gàddaay yi la leen yàllay dencal fa tabaarakallaahu fekk mi ngi leen doon xibaar ci ñetti at sunu borom xamaloon na ko ne sa woote bii boo wootee dinañ ñu wuy si la waaye ginnaaw ñetti at nag fa la nattu yi commencé muy les persécutions ñetti fan ba Seydina mu jóge yof di gàddaay ngejje ga def ñetti fan ginaaw ñetti fan yooyu nag ci lañu ko jàpp ci lañu ko yóbbu gore e, fa interne ko fa ñetti weer lii mooy sababus ñetti at ñetti fan e ñetti weer muy bërëb boo ba nga xam fa at bu jot Kurel gi dem fa ngir fataliku bés yoyu fa sang bi Seydina al Mahdi yu amoon yàlla defal ñu jappandal ak ndimbal at yi nurul Mahdi di ko organiser di ci and ak njabootug Seydina al Mahdi yu gu tedd gi ci njiitalal Seydi Mouhamadul Amin ibnu sayyidina abubakar lay ak rakkam seydi maam libaas ibnu seydina bakar laay ak njaboot gu tedd gi yépp nag ñu fay teew at bu jot fa tabarakallahu di fàttali jaam yàlla yi béréb bu tedd boobu nga xam ne seydina limaamul mahdi yu tegoon na fa tànkam ju tedd ja eh foog naa ni fii ñu toll ci téere bi sax xaw na dëppoo ndax incha allahu taala ci premier mars lañu koy amal muy léegi nag événement boo xam ni événement diine ji yëpp la ndax ñu ngi koy def avec la collaboration de la fédération des daire Layeen kon mu mel ne tey fii ñu daaneele seen dars ci téere bi am na solo incha allahu nag eh, dars bii di ñëw dinañu leen wax gàddaay bi la ca xew Eh, Seydina Limaamu ba mu demee ngejjaga la fa xew ba mu fa jógee ba nanu koy jàppee ba koy yóbbu gore it fa tabaarakallaahu la fa xew eh, kon foofu la ñuy daaneele tey seen dars ci téere diine ji te ñu nekkoon ak yéen ci Bichri Mouhibine ki ci doon ànd ak yéen di seen mbokku taalibe di Ababacar lay ki féete ci technique bi di sunu xarit di sunu soppee di maxtaar laay ñu koy wax maxtaaru maxtaar di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal xéewal ak jàppandal fa tabaarakallaahu e di feddali cant ak ngërëm ci mbooleem auditeurs yi nga xam ne ñi ngi ñu doon déglu ak fépp fu waay nekk ñi nga xam ni ñi ngi ñuy dégloo fu ne ci réew mi ci 92 point 3 ak ñi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñi ngi ñuy dégloo bitim réew ci site bi 3w layen point sn ci jàppandalu situ nuurul mahdi fa tabaarakallaahu ñuy ñaan sunu borom yàlla na nu yàlla dolli xéewal dolli nu sutura dolli nu teraanga defal ko sunuy kilifa defal ko mboolem jullit ñëpp yàlla mi baax te amuk mbaax yàlla na nu yàlla dolle baaxal yàlla na yàlla dolle baaxal sunuy mbir yàlla na yàlla baaxal sunu njaboot yàlla na yàlla baaxal sunu àdduna baaxal sunu alaaxira wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh الحمد لخالقنا وشكر لرازقنا ثم صلاة ربنا على النبي شفيهنا xerawlu leen ma deeti way imaam lay mi jara way marsi siidi ruuxu lay jantum nga neel ba suuxina gëm woolu leen imaam na te woolu saydu ruuxuna ibnul imaam il xasana ndax yàlla fay nu aljana nan gëm te xam ne seydina limaamu may gayaatu na lu jiitu feeñ nga nekkoon na ca ngor di jaamu rabbana limaamu nee na jullikaay boobe ñuy wax ca ne mooy bu seydina xaliilu laay am na fayaat yu yàgg naa